gars yi jël leen seen temps xaar leen tuuti Mimi Kayto jotuma ko ok xaar leen. allo eh, si nu mu demee ba nag <laughs> de ok mais sa photo yin ma yónnee na ma yow la nag yow la wala. <laughs> a ah, xam photo daal booy baaraamee sa bopp. man de. kan moo ma ko yónnee kon lu tax ñu ne yow ah du man de. yow yi naan ko sama sa photo daa nekk sama galerie xaw ma. de. waa léegi yow yaa doon baaraam sa bopp noonu wala du yow. man du man de. non dama ko naroon a dugal tey mais dama ne naa la woo ba pare ndax jékki-jékki rek dugal kanamu nit ki. ah dommage. ndax mën na doon montage quoi comprendre nga. ah. yow mosoo envoyé sa lëf. déedéet. mosoo baaraam sa bopp. ah kon naa xoolaat photo bi bañ ko dugal mais yooyu dee ko éviter de. ak Serigne Babacar si du man. yooyu bu ko di de sinon du ma la kii de. baik-baik dia enggak? Ada. Halo? Yo debe. Sawa? ini jidam. Eh, mimi kayta man la Adamo boss day nigri. Oya. Wa dan yang yonne won benn vidéo bo xamanteni ci baram sa bop après ñu ne mo mimi kayta jox ma sa numéro ma ne xaar mo woko bala mako duggal. ban vidéo la noonu. xaw ma ko de yow da nga doon baaraam sa bopp wala. question yooyu laa di laaj parce que man bu ma jékkee jékkee dugal rek. Igbo ni ma dalal rek man maay wax ak yow dalal rek. waaw léegi yow ku la yónnee ku la yónnee vidéo non man damaa toog yàgg ñu yónnee ma ko léegi nan ma ko yónnee te man xam nga ne du ma jaaxaan xam nga ñi ma ñi ma ñi ma ñi dugal ci internet bi danoo bëri ñii ñi ngi ci porno yi ñii ñi ngi ci YouTube bi ko ma xamul Sénégal dégg ko man bala maa jëf vidéo damay woo nit ki. ma vidéo bi fii ci téléphone am xool ba pare man su ma xoolee ba pare dinaa la woowaat. waaw ndax dafa am loo xamante ni naay sur quoi xam nga man damaa baax man damay baale rek. waaw léegi. waaw non moom dafa re non non moom dafa bëri wax te man bëgguma ko bëri wax meer man loolu sama rab yi moom la bañ dangay kay mën a waxtaan ak man. dëgg la ngir jëm mi sëñ Abdou Karim dimbali ma rek yow man nga ma vidéo bi xool ko ba pare. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yàgg